waaw dama demoon la dem nu ma je savais même que j'étais chez elle après quand je suis que c'était chez elle j'ai demandé à le voir elle est sortie mm-hmm. elle m'a dit tu es là tu es toujours le bienvenu ici elle est formidable elle et elle m'a demandé de quitter la chambre que j'avais pris pour dem yóbbu ma ci suite ba eh may noos yow taay noos gi bëri na noos fa noos yu dégg am tubaarkàlla te di nelaw ba sànni tànk alaaji waaw ba ma nekkee nag ca néeg ba dama yeewu jour boobu dama sonn dama yeewu rek sànni sama loxo bi nii rël mu ni rëll ci lal bi rek monteur bi ne ma ndax da daanu ah oui soo bëggee ñu alerte kenn ma ne non j'ai pas eu de suite waxoon waa loxo bee daanu rek man montre bi di insister daal di ma commencé man a kii yow yow lu sëyoon sama daanu. dëgg alaaj yooyu tam. donc loolu dafay tegtale ne. montre intelligente yi am na njariñ bu dut wax la ñaata paa nga dox. très bien nit di woote nga gis ne mu ngi lay woo. Mhm. baa nga man cee wuy téléphone ak yooyu. alaaj xibaar nu ni nga dugalee sa sama information neex na ma neexaay goo xam suñ génnee naa jox 1000 francs c'est très bien. <laughs> merci beaucoup tu j'aime bien. jërëjëf jërëjëf parce que des fois da ngay indi ay kii nit ñi naa la lii ban sens la amal Sénégal ndax am na Sénégal wala amu fi yow alaaji Pape Sidi Fall mi Saly gii la la dalee. ak uh-huh. quelques kilomètres de Dakar man à chaque fois su ma demee di football wala ma basket ñu ma tëlee ma xalamu montre bi day jóg siisu ne ma waxal ndax ça va ou ça boo waxul ça va pas mu continuer di la fàtt comme nu mu la fàttee woon. wóor na yàlla ma naan ko dara dalu muy naan ma ndax day alerter SOS ma ne ko Sénégal fii ban SOS ngay merci léegi nag boo configuré woon sax ay contact d'urgence appel d'urgence da ciy ne kenn woo ko directement wala mu envoyé ko euh, message directement jox ko position bi nga waddee bi nga xamee comme ñun amuñ ay SOS ay 91 et cetera li may wax ni c'est au Sénégal ñun ñii def ñuy dal. léegi montre connecté yi pourquoi mu cher c'est pas parce que comme tu as dit ça sert juste à compter des pas wala jugal naan ndox wala et cetera parce que am na si yi nga xamante ni bit lañ koy woowee. yaa ngi wax Galaxy AI ngi wax waxu mo Apple Watch de. <laughs> Eh, man daal Grégoire yow Grégoire ñëwal ci montre yaa ngi góor contraire yow. <laughs> barki borom toi. yaa ko macha allah lii yëpp kañu la exact gën nga <laughs> mais xoolal. phrase bi avez-vous fait une chute. voilà lii la mu wax. mu ngi nii j'ai chuté mais ça va. voilà appel d'urgence lii moom da koy détecter automatiquement parce que dafa intégré benn gyroscope ci biir. Mhm. yeneen montre yi nga xamante ni Fitbit lañ koy woowee yi jar vingt cinq mille quinze mille trente cinq mille yan sax yu sew lay nekk yooyu mooy yi nga xamante ni compte pas xool sa rythme cardiaque et cetera et cetera bokkul ak yi nga xamante ni dafa intégré ay boussole intégré ay détecteur d'altitude lépp moo tax montre yi nekk ay montre yu cher léegi nag Apple Watch dañ koo gis ne depuis bu ñu ko créé ba léegi dafa nekk ay montre yi nga xamante mu ngi sauver des vies un peu partout dans le monde alors spécialement histoire bi nag c'est un jeune bu nga xamante ni Joseph la tudd ànd ak benn doomam bu am 14 ans xam nga dafa am ñi nga xamante ni dafa am ay maladies chroniques yi leen di dal par exemple moom mal aigu montagnes la am mooy ñi nga xamante ni suñu yéegee ci kaw montagne yi dañuy am problème pour pour pourquoi parce que boo demee montagne bi nga xamante ni dafa dem par exemple 4000 mètres d' altitude mooy temps booy bu ñu doon wax waa Kenya seen dëkk yi dafa kaw xaw ma dafa suufe mhm. suñu ñëwee suñu dëkk yi di daw duñu gaaw a sonn parce que ñoom fi ñu nekk amuñu oxygène bu bari donc bu ñu ñëwee fii dañuy am oxygène bu bari tu vois léegi ñoom dañoo demoon en montagne taxawaalu ji fekk ne papa ji xamul ne doom ji maladie boobu daf koo dal te c'est une maladie extrêmement grave bi nga xamante ni bu continuer mun na indil nit ki mu faatu. Mhm. léegi bañ demee ci kaw montagne bi commencé tëdd di nelaw ba si yàgg automatiquement montre connecté bi détecté taux d'oxygène booy bi dafa commencé wàcc xam nga keroog ba mu lay wax fii waxi Galaxy Ring bi. Mhm. maa la doon wax ni ci fonctionnalité yi même suñu montre yi daf ko am di nga am euh, capteur électrocardiogramme bii par exemple soo defee nii. après dinañ def démonstration bi ci kanam di nga mën a mesurer sa électrocardiogramme. di nga mën a mesurer sa battement par minute parce que ñaar yooyu bokkul. dina la mën a wax sa taux d' dans le sang taux d' oxygène dans le ay temps ñu ngi ko doon utiliser oxymètre oxymètre mooy appareil boobu nga xamante ni moom ngay kepp fii maa ngi la ko doon wax. jamono coronavirus moom lañ doon képp mhm. fii di xool ndax sa taux d' oxygène bi nekk ci biir sang bi c' suffisant si ça va en deçà de quatre vingt dix huit pour cent ça veut dire que tu problème da war a dem ñu xooli la ba quatre vingt sax suma ma juumul léegi nag après ci lañu ci la remarqué ne taux d' oxygène xale bi mu ngi wax ci bu baax a baax a après ci la demee alerte ñi nga xamante ni mooy service di urgence service d' urgence yi ba ñu ñëwee xool effectivement ñu gis ne xale bi dafa am maladie boobu te su nekkul woon li nga xamante ni moom mooy Apple Watch bi moom du remarqué ne taux d'oxygène dans le sang xale bi. Mhm. dafa dafa wàcc. te duggul ci Apple bi pour euh, lancer li nga xamante ni moom mooy contrôle taux d'oxygène dans le sang bi montre bi ci boppam moom moo toog rek détecté ko donc alerte commencé di def ay ay ay alerte pour wax ne le taux d'oxygène dans le sang. électrocardiogramme bi aussi fan yee passé sauvé woon na benn docteur dentiste bi nga xamante ni dafa toogoon nii rek benn jour. remarqué xool bi dafa xaw a diis alaaj te moom série six bi sax la amoon nga xamante ni c'est révolu instant bi ñu ngi ci seeri neuf bi ba mu toogee remarqué ni xool bi daal ça va pas donc am na ay anomalie yi ci ne mu ngi koy sentir xam nga la la def dafa dugg ci dafa jël Apple Watch bi mu dugg ci biir <coughs> dugg fii xoolal mhm. ba mu duggee ci kii bi partie euh, bi ñuy testé euh, électrocardiogramme bi fii ba mu duggee ci parti boobu noonu dafa mesurer automatiquement li nga xamante ni <coughs> waaw ma génne la ko comme ça nga mesurer ko sa bopp voilà léegi gis nga ko nii mhm. boo ko tekkee te mu te mu verrouillé wu quoi dafa dugg ci partie bi nga xamante ni moom mooy mesurer électrocardiogramme bi automatiquement teg fii baaraamam boo tegee fii sa baaraam mhm. automatiquement daf lay mesurer li nga xam alaaji yëkkatil caméra boobu ci sa ginnaaw di ko génnaale. voilà léegi boo duggee. alaaji wala la. non sa ginnaaw la defe naa bii bii la bii la léegi gis nga instant mu ngi lay woon form kër bi nii tu léegi fii boo tegee fii sa baaraam automatiquement donc moom day détecter sa pouls jël li nga xamante ni moom mooy sa électrocardiogramme sa fréquence cardiaque. normal bu jëlee fréquence cardiaque ba pare daf koy envoyé ci sa téléphone via l' application santé application bi nga xamante ni nee nañ par exemple bu dee Samsung la Galaxy Ring bi bu génnee dañ koy gën a améliorer dafay am ay interprétation yu gën a pointu léegi bii boo bësee fii automatiquement moom dafay interpréter li nga xamante ni moom mooy analyse yi defal la ko comme tey boo demee à l'hôpital bu ñu la defaree test électrocardiogramme yi ni ngay jotee analyse tey boo ko joxoon un docteur par exemple nga ne ko lii montre moom moo ko def da nga naan déedéet danaa la déedéet lii montre defu ko donc c'est un appareil électrocardiogramme carrément moom moo ko def léegi waa ji ba mu defee loolu résultat yi na ko effectivement sa xol bi dafa am problème léegi ba mu demee ci médecin pour vérifier li ko montre bi wax il a remarqué le médecin lui a confirmé que dafa am benn artère bu bouché bu nekk ci li nga xamante ni moom mooy xool bi alaaji imagine loolu mhm. moom bu mu demee ci médecin bi médecin bi nag effectivement danga am benn artère bi nga xamante ni dafa bouché léegi su fekkul woon ne jotoon na vérifier ak montre bi via capteur électrocardiogramme bi peut-être mënoon na toog ba artère boobu bouché ba jural ko hypertrophie peut-être ba mu am li nga xamante ni moom mooy infrastructure du myocarde kon xale bi daanu waaye dafa tempéra ak yem affaire moo doon wàcc waaw tu vois léegi keneen ki moom c'est un dentiste bu toog sentir ne xool bi dafa diis mu dugg teste affaire bi ne ko effectivement danga am benn alomali mu daw dem hôpital ba mu demee hôpital médecin yi def diagnostic gis ne dafa am benn artère bu bouché effectivement ci xool bi te bu deful woon test ci montram test de premier niveau du du du doon am si dem hôpital bañ koy gisal li nga xamante ni moom mooy artère donc c'est important c'est plus qu'important c'est c'est c'est technologie c'est gadget de technologie alaaji par exemple man <coughs> ñëpp dañ ma xamee woon ay montre de luxe sama anniversaire bi passé jëndeel nañ ma ay montre de luxe montre yi mu ngi foo ma teg mënatuma ko takk je je ne peux plus me passer de ce de cet outil là te am na ay montre yu ko gën a cher téeméeri fukki junni yoon fuuf yi moom am na ay montre yu ko gën a seer. téeméer yoon. ay bii nag seer yombul de hmm. ay des fois mu laal quatre de am na yéen bu ngeen génnee barki dem ma gis ko. muy ultra bi waa Apple xaw ma six cent dix mille. mais en fait boobu c'est pour les sportifs de très haut niveau. Apple Watch Ultra boobu. Ah. nit ñi des fois da ngay gis fii ku ko takk di doxantoog moom juste pour show off. mais boobu ñoom bañ ko defaree dañoo ne lii pour yékkatu montagne yeeg les alpinistes et cetera parce que dafa am boussole dafa am ay détecteur d' altitude ak Sénégal dafa montagne boo yéeg bay takk montre boobu ah. te à part loolu fonction yeneen yi nga xamante ni montre boobu mu ngi koy def yëpp yii da koy def très bien donc montre bi jarul nga ciy xaabaabal di jël xaalis bu du jeex di ko def ci kii bi mais bi mën na am njëriñ ci lépp merci par exemple ki nga xamante ni dafa détecté xool bi dafa am problème série bi la yor série six. te ban série lañ toll ñu ngi neuf man huit la yor six bi. c'est-à-dire cinq six sept moom yaa ngi ci diggante bi maa ngi huit te damaa gis ne huit beeg neuf bi amul différence bu bari. j'ai vu aucune différence Apple moom ay ay chargeur la ñuy changé. yu ñàkk leen ko lu waaw wala benn affaire bu ndaw la ñuy dugal ci man nag su ma changé rek c'est parce que am na benn kii bu mag. Hmm. am na benn changement bu ngande. diggante appareil bu bees bi ak bu yàgg bi par exemple sama man 14 laa yor ba léegi ñii ñaa man ma ne lu ma jënd 15. ah mais parce que 15 bi ak 14 bi amul benn changement à part port lightning bi ak affaire boobu noonu ak bouton bi ñuy programmé te loolu ku la neexee say raccourci boo amee un peu de xereñ dans la technologie fi am changement kay mooy entre le Galaxy S23 et le Galaxy s avec l'apparition de Galaxy ay merci beaucoup Alaaji merci encore tey moom xaw ma lan nga <laughs> merci pour la transition franchement tu sais keroog j'ai fait une petite vidéo sur euh, les réseaux sociaux pour expliquer en fait l'évolution majeure bu nekk ci galaxie parce que ay waaw nous on a l'habitude de juger les téléphones juste à travers les designs da ngay gis téléphone ñu jël doo yi teg ne bon y' a de changement parce que bii nii la mel dañoo xaw a arrondir angle bi et alors que téléphone yi par exemple on dit Samsung Galaxy S yooyu mooy cest dire la gamme de luxe. Mhm. wala la gamme silver. silver haut de gamme de mhm. Samsung. Mhm. dafa am ay nit yi nga xamante ni moom lañ ko destiné A bi am ñu ko destiné ak yeneen et cetera et cetera. maintenant téléphone yi dafa am benn technologie bu nekk ci biir bi nga xam ne utilisateurs yi généralement duñ ko sax xam léegi changement majeur bi nga xamante ni dafa am ci ren Samsung Galaxy S24 bi xam naa ça la première fois ma ma jënd ko parce que dañ cee def li nga xamante ni ça m'intéresse muy l'intelligence artificielle dañoo Samsung dafa miser ci benn intelligence artificielle bi nga xam ne daf ko def ci biir Samsung Galaxy S24 yeeg S24 Ultra yeeg et cetera muy Galaxy IA e maanaam Galaxy artificial intelligence léegi intelligence artificielle bi ci doy waar mooy dafa am ay fonctions yu bees yi ci nekk bu ma ci gën a neex mooy le fait que tey tey su ma doon wax ak yow téléphone ngay làkk chinois may làkk euh, euh, créole wala portugais dafa am traduction instantanée bi nga xamante ni daf la koy defal. manaam boo amee fournisseur bu nekk Siin. bu nekk Siin ngay jënd bagage. mu war laa jaayi bagage ngay làkk chinois moom ca Siin. yow ngay làkk français. yow ngay làkk français fii ci Sénégal. waaw moom day dégg li ngay wax ci ci chinois. ca làkkam yow ngay dégg li muy wax ci français. merci <coughs> traduction instantanée muy li nga xamante ni dañ doon. Euh, dañ doon galéré parce que man chaque jour nit dafa doon dajeeg man naan est ce que am na bi nga xamante ni boo waxee daf koy et cetera moom la ñuy intégré ci assemblée nationale yeeg et cetera conférence de presse keroog gis naa Aliou sax waa ji doon làkk naar muy jéema a dékk affaire pour mu traduire ko ça n'a pas marché mais léegi avec les téléphones c'est très possible que ça soit ay vocal que ça soit appel et cetera beneen bi ma ci gën a neex aussi mooy le fait que mu mën laa résumer le texte alaaji boo yi jàng nekk université ñu leen di jox ay cours yu gudd a gudd gudd et le but de tout ça c'est en fait de comprendre tu as la possibilité de prendre des textes de quinze pages nga sélectionné ko Galaxy AI bi. defal résumé. defal la ko résumé su naw et puis résumé extrêmement fidèle. tu t'imagines ça c'est-à-dire c'est le un gain de temps hein? un énorme ba pare non seulement tu tu en temps mais en compréhension parce que le fait que ngay lire lu gudd loolu mën na laa. yóbbee ngay réer et cetera. boo gisee livre sax mun na la ko résumer. da lay résumer livre bi dootoo fi nekk bi naan ay nangam sangam. boo demee réunion comme ñun nu ñuy faral di def naa ñu jëral compte rendu réunion bi da ngay bind les grandes lignes takk après intelligence artificielle bi résumer la réunion bi tegal la ko nële te ya tu as la possibilité sax d'enregistrer léegi. Ah, vocalement mu vocal mu bindal la ko texte boo paree nga demaat ci tra ci kii bi euh, le fait que mu résumé la ko bu la ko résumé la alors c'est fini. mais dans l'énoncé quand on annonçait aux téléspectateurs c'était pour dire bon je pense que beaucoup de Sénégalais ils ont compris que am na ay avancées par exemple mën nga jël photo boo xam ne dafa xuur. waaw soppi ci nit ku la neexul. mbaa dara lu ci nekk waaw yooyu yow daan nga ko def. waaw yooyu daan naa ko def. léegi nag ak intelligence artificielle bi dafa gën a évoluer. léegi xam nga moo gën a dee. léegi photo bi sax bu moom mooy moom da ngay photo photo bi bon moom mu amélioré boppam photo bi. defaral la ko ba mu nekk. pixelisation beeg lumière yeeg balance yeeg yëpp zoom yeeg yooyu beneen bi nga xamante ni aussi sama coup de la mooy les recherches léegi big bi ngay jël ñu photo ñun kaat. fendi nga sol ma jël big bi entouré fendi bi automatiquement il ma propose des images automatiquement maanaam da nga koy cercle dama koy cercle rek dama naan li man de liyee ma ñor rek def nii cercle ko rek mu yóbbu la boo ko cercle rek alaaji mu indi la ay résultats instantanés yoo xamante ni c'est très sémantique loolu ci la su ma fi nekkee di lim évolution yi du jeex mais li ci yan galaxie lay compatible voilà li sabab waxtaan bi ñu bëri dañoo yaakaaroon na ci S24 bi rek lay am mais Samsung dafa ne noonu donc S23 yi dinañ ko am. Hmm. ultra beeg yeneen gaam yi Z Flip 5 Z Fold 5 ak li nga xamante ni moom mooy Galaxy Tab 9 ultra bi. maanaam yi mujjee génn daal yi mujjee génn maanaam yi toftalu ci 2022 2023 ba 2024. exactement ñëpp ci gaa yooyu danañ ko laal. waaw mooy toll ci li nga xamante ni moom mooy kii quoi. loolu mise à jour lay nekk rek pour nga mën am loolu. mise à jour lay nekk pour pour léegi bañ laajee waa Samsung ndax yu yàgg yi ca la bokk ñu ne non pour le moment yooyu mënaguñ cee bokk quoi ñoom aaw ak de 22 et cetera. balaa ñuy dem saa xale bi créer affaire yu am solo. Mm-hmm. moom moom moom Elon moom moo créé Tesla. moo nit day tuxal nit ñuy dem dëkki Mars moom ci yëfi doxam yooyu mu nekk moom daawu ci gaaw a jub. waaye fi mu nekk nii la mu doon wax nit nii di ko jàppee ab dof waa ji jënd Twitter moom daa mel ne fi mu nekk nii daa gën a rak rangatiku ndax jël na ab nit defal ko piis nit ka di dox waa kana nangu loola xam nga alaaj Elon Musk mii buñ ko arrêté wul fu mu jëm ak ñun ndox du fa am ay rëboo la ñu bëgg a def daal non ay machine la ñu bëgg a def quoi c'est-à-dire keroog fan <laughs> fan yee passé banque yi la bëgg a supprimer cest à moom ay rêve am c'est des rêves prétentieux des fois démesurés mais il va jusqu'au bout quand même. <laughs> il se donne les moyens de il réaliser ses rêves. Il se donne les moyens de réaliser ses rêves et il s'en fout. Et puis il fait des fundraising Parce qu'il y a beaucoup de dégénistes comme lui, hein. y a beaucoup de personnes qui sont fous. Alaaji lan moo gën a con ñu baal ma ci expression bi quatre multimilliardaires yu dugg ci benn euh, espèce sous-marin bu ma leen di dawal pour dem six mille mètres de profondeur pour xooli épave Titanic ba affaire bi implosé ñu dee ku nekk fay deux cent cinquante mille dollars pour dem xooli c'est-à-dire ñoom tubaab yi bu ñu amee benn fortune dama yaakaar ne yàlla da koy remplacer par seen xel yi moo dal ñii di investir ci affaire projet Elon Musk yi xam nga Neuralink man yàgg naa kaa dégg yow yàgg nañ toog fii ci waxtaan mais ci phase su testé ci ay golo lañ lañ yemoon ak cochon. cochon. am na benn cochon ko defoon. testé woon nañ fi ci cochon. Mhm. fan yee passé ñu testé woon ko sur vingt cinq singes. Mhm. le plus grave dans tout ça sept singes kese ñëw si dund. yeneen ci des yëpp dañoo mujjee gaañ. malgré ça Elon Musk neen da koy testé ci ay doomu aadama. Neuralink bi je rappelle que benn puce la bi nga xamante ni l' objectif est de coupler l' électronique à l'humain hmm. puce bi xam naa Grégoire sànq wane na ko dina ko fi wanewaat dañ koy jël integre ko ci li nga xamante ni moom mooy cerveau doomu aadama bi donc via l' intelligence artificielle est pour enregistrer activité cérébrale yi ñu mun a xam nit ki naka lay xalaatee nit ki naka lay réfléchir nit ki c' est à dire ses moindres faits et gestes ñu ne dañ koy enregistrer léegi bu ñu demee ba maîtriser li nga xamante ni moom mooy naka la cerveau bi di fonctionner. dans les moindres détails muy pièce bu ndaw bi pièce bi am na mille deux cent cinq électrodes yi nekk ci biir. waaw lii bu wifi bi coupé mbaa doo dof. waaw kay xam nga <laughs> xam nga yow ay wifi nga wax courant bi ci nee nag. moom kay courant buy mars sa bopp bi moom sa sa xel mi lay mars. peut-être suñu xam-xam moo xaw a gàtt mais man je sais pas cest par quel moyen ils peuvent connecter le cerveau humain à ça. c'est des c'est des c'est des moi je pense que c'est des. c'est des c'est des c'est des signaux qui sont envoyés aux. c'est des signaux c'est comme. xam nga dafa am lu ñuy wax et qui capte pour le moment qui capte des informations côté boobu dafa am lu ñuy wax électroencéphalographie am na ci hôpitaux yi benn casque bu ñu lay takkal muy xool signaux yi nga xamante ni moom la cerveau sa cerveau bi di yónnee léegi à travers loolu dinañ ci am ay informations mais dem ba nag yow ngay jël ay information di ko dugal ci cerveau bi ça c'est autre chose. léegi moom. foofu léegi opérateur yi commencé ñu wax boo bëggee xalaat en 5G fayal 1500. ni <laughs> par an. non non on va pas arriver là. non mais ils vont le faire. Non, mais... ces gens de nous vendre l'air que nous respirons. waaw ouais, mais. Ah. ils sont capables de nous vendre l'eau <laughs> ils sont de nous vendre tout. waaw a été donné gratuitement par Dieu. dans l'histoire de l'humanité oui. il y a que l'humain. Mm -hmm. dans toute la création de de Dieu. oui il y a que l'humain qui paye. pour avoir des choses gratuites. oui manger. bizarrement manger ouais. dormir. dormir se loger. se loger vêtir se nourrir. se nourrir et de l'eau boire de l'eau l'humain c'est la pour pisser il faut payer mais il tu payes tout demal douze kolobaan pas fukk wanak fukk la wanak fukk tuur ndox juróom. dina réer yi. <laughs> mosoo dugg ci douze fay. <laughs> non eh bu ci dugg <laughs> léegi. non mais quand ils auront installé ça. Ah. ils vont dire pour réfléchir en 5G Pro Max il faut payer une facture. parce que c'est ça le but quoi surtout ñi nga xam surtout lui c'est un capitaliste tu as vu fexe na ba jënd Twitter il fait payer les gens pour ñu nekk ay ñu sentir seen bopp ay. nit ñi important bëgg a modifier xaw ma keroog benn tweet bu ma defoon. Euh, conjonction de coordination bëgg ko modifier mu ne ma da ngay ah, abonné boo abonné wu doo modifié ma ne ko kon bàyyil ma ko bindaat ko ko bindoon mais loolu kese la man ci man man man man man maa ngi su ma bëggee dogal vidéo bu cinq minutes ci Twitter mënu ma ko dugal deux la lañ ma dañ ma naan boo bëggee cinq minutes da ngay abonné Twitter bul ma ne non man abonné naa ci lu ne ba mu des Twitter seetlu woo ko am naa ChatGPT am naa Canva am naa yooyu yëpp Pixar mais Twitter laa ne abonné wu Twitter de wóor na yàlla bu sénégalais yi sawaroon ci liir la fay xew. <laughs> parce que bu doon bàyyi Twitter rek. loolu moom nan fa nekk di waxtaan suñu biir rek. <laughs> non je te jure. teel 221. y' a pas plus plus plus plus xumbu ga là-bas. j'ai fait les frais j'ai fait les <laughs> a pas de liberté euh, c'est plus que ça. après la liberté y' a quoi non c'est pire. liberté c'est au-delà de ça quoi. non c'est au-delà de la liberté. tu vois des gens di dire des choses. c'est la jungle quoi ils classent dans la liberté d'expression tu te dis le propriétaire de la plateforme lui. Ah. vous ne l'atteindrez jamais vous ne l'arriverez jamais. Euh, non non lui c'est c'est vous n'arriverez jamais à son niveau. kooku beneen level la beneen level donc bi ñu ko defaree nit ki mbaa nit ki parce que fan yee passé dañ doon def appel à candidature pour volontaire xaw ma pour ay nit yi nga xamante ils sont intéressés. c'est là que tu réalises que les Américains sont des fous quoi il y a plusieurs personnes qui se sont portées volontaires pour ñu ubbi seen bopp yi defal leen ci li nga xamante ni mooy puce bi alaaji <laughs> les conditions yi mooy il faut avoir vingt deux ans au moins nga nekk koo xamante ni tu es quadriplégique quadriplégique donc boo demee léegi nag ñoom ils n'ont pas voulu révéler l'identité du candidat c'est-à-dire ki nga xamante ni moom moo bëgg moom la ñuy defal affaire ci boppam parce que Elon Musk ci boppam moom moo annoncé ci compte Twitter am mu ne finalement dugal nañu puce bi ci bopp benn doomu aadama bi nga xamante ni il s'est porté volontaire mais maintenant il y a plusieurs associations qui scandalisent la chose parce que ils disent que c'est pas normal déjà ñi nga xamante ni ñoom ñoo géré woon protection des animaux ñu ngi koy topp ci le fait sur vingt cinq golo yi sept golo kese ñoo ci survivre yeneen yëpp dañoo décédé léegi nag mu ni da koy jël. di golo ñoo dee. dix huit golo faatu ci ay dugal pis ci bopp nga bëgg koo jël nag ne danga koy dugal ci li nga xamante ni moom mooy boppu doomu aadama yi mais Elon Musk moom il s'en fout c'est tout le temps quelqu'un qui est têtu qui fait ce qu'il veut faire il s'en ñaata yoon la fi lancé ay navette SpaceX affaire bi di explosé di yàqu mosul bàyyi. essai bu mujj bi fan yee passe dafa dem ba si kaw explosé il était content parce que ça a décollé il injecte des mille des, des millions de dollars sur ça léegi projet bi nag normalement je pense que ça doit prendre euh, six mois pour vérifier xool est-ce que c'est possible de d'utiliser sa sur le cerveau d'un être humain ou pas ils ont déjà implanté ou pas implanté nañ ko nit ki xamuñ dara ci moom. xam nañ ñoom ñoo bëggul révéler identité nit ki pour bañ ay problème mais implanté nañ ko ba pare. def nañ li ñu def léegi c'est quoi les résultats qu'ils lan lañ ciy xaar ñoom. résultat yi ñu amoon ci golo yi c'est-à-dire xool activité cérébrale yi pour def. lecture xool nit nan lay réfléchir xool nit muy réfléchir. sens bi naka lay fonctionner et cetera. des millions d'années d'existence c'est maintenant qu'on se pose la question comment l'homme réfléchit l'homme kay réfléchit li mu réfléchit yëpp def na ko ci àdduna bi. ci yàlla américain il y a des choses qui sont un peu divines donc pour atteindre sa c'est pas donné Alaaji. il y a combien de ils sont ouf ouf hein. de nerfs <laughs> qui composent l'être tout tout ça la science la déjà démontré. waaw mais wala dañu bëggaat leneen. cerveau de mooy lekk lu leen jaaxal. nan lañ koy xoolee ak nan lay lan lay xalaat ak lan lay def yàlla de ku bëgg lu ñu tuy mbiram. da lay bàyyi yow sa téléphone bi dañ la naan téléphone bi 512 giga moo ci nekk man sama téléphone yow sax xam na. Ousseyn Fatal merci beaucoup. ah deux ans nga feesal ko. yow ba nga juddoo ba léegi yaa ngi record su cerveau bi mënul fees loolu loolu loolu da leen di jaaxal. Et tu records par tout les sens, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, le toucher. lu sa cër def da koy save. su may laal guubu kaani di xam ne guubu kaani la c'est stocké dans mon dans mon dans mon cerveau. ba ci levelu kaani yi da koy xam xam nga kaani Tyson lu muy saf xam nga beneen kaani bi lu muy saf xam nga kaani thaïlandais bi lu muy saf kaani bii boo ko séenee di nga xam ne ah bii kat saf na alaaji. xet gi jógee rek nga xam ndax. kaani bu xet gi di jógee fële la ñuy rosi ñaf ko ci biir nga naan ah. kaani Tyson <laughs> wala Gowana. wala Gowana alaaji loolu lu jar a la yàlla kese borom ku ko ñuy jéem a xuus da ngay faatu. Hmm. adduna bi dey xam naa ni xar bopp doomu aadama def ci piis dey ah bu sa crédit jeexee dootoo xalaat. mais am na dox dajeeg nit mu ne yàgg rek nga ne wala la mu ne sama crédit jeex. am na film <laughs> am na film de pourtant. wala yoroo chargeur. yor iPhone nii nii fu ñu dem <laughs> saa amoon ah. sa bopp. imagine nga yor mu def la piis. sa énergie jeex nga saa yi gars na la. allahu akbar gis nga de nii de lan ko bëgg defee ñoom na rali. mu ngi nii waaw góor ma ngoog. moom sax fii dañ ko fay rebooté kii du elo. moom la moom moom jëw kii il est waaw moom du ko defal boppam comme gëm na projet bi moom. ma ne la nee naa les plus grands savants les créateurs de ces trucs là seeni ay doom du ñu utiliser lii. ay école low teg leen leen di inscrire ay doomu Bill Gates ak kenn kenn du ci utiliser ay réseaux social ñun kese ñoo si ne topp ci di rey suñ bopp. mën ngaa gis jaaykat drogue buy consommer drogue. su ko defee du mën jaay. du ko mus a def. du mën a wàññi xaalis bi. noonu da koy jox nit ñi ñi koy cons moom muy lucide di leen jaay c'est ça. xanaa xamoon nun suñ pa bawol bawol yi dafa am ku ci indi woon ay ñaari camion jaxute. ca tool ba jaxatu gaa yi bañ koo jënd mu gis ne nit ñaa ngi jënd mu ne ah lii kat ku ñuy tooñ ku ñuy tooñ doo ko lekk <laughs> rek ñëpp jënd mbooloo mi ku nekk fàgg ci saabu ah, <laughs> d'où c'est parti la rumeur de ku ñu lekk ku lekkal jaxatu waaw ku ku ñuy tooñ doo lekk jaxatu ah oui lekkal jaxat ndax ñi ko mosoon a jënd ñëpp dañoo jàppoon ne daa weex te góor gi li mu ci dese woon bari na lool. Ah, paa boobu moom muus. mu ne ku ñuy tooñ bawol bawol yi la. <laughs> tooñ moom doo lekk jaxatu moom jaxatu moom képp ku <laughs> ku ñuy tooñ. doo ko lekk gaa yëpp dem ko. jaxatu pour ku ku ñu tooñ doo ko lekk. wala gaa yëpp nañu lekk jaxatu léegi. kii sa yi nag. ñu ne ko amatul mesure barrière mu ne musiba am <laughs> corona bi jigéen na fi mu ne wax ngeen musiba am naa sa sa benn xarit bu jënd 9000 maillots maa ngi koy masta bu baax. si la 9000 maillots la jënd te ay authentique la dem commandé.